la Hey, démb ñun ñëpp amu fi ku fi sa bagage fanaan boo xoolee marché bi nga tàmbalee ko ca 28 ba fiy gisatoo fi dara loo xam ne lii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi lañ leen di tuddee ñun marsa tabal yi wala marsa ambila yi wala ñiy taxaw di yor seen bagage wala ñi lal ci kaw tali bi ñëpp fekku leen fi dara tey ndax ndigal kese la ñu wéyee dindi nañ ba pare li ñu fas yéene tamit mooy fa yéene seetal fii bale ko moomu set wecc ñu toog de dégluwaat ndigal ba keroog ndigal di ñëw ci suñu kaw ak lu ñu yóbbu ci suñu njaboot loolu rek moo ñu tax a jóg ñun fii kuy sàcc néew fi kuy jaay lakk sa du noonu nekku fi ñiy daan seen doole ay dongo yoo xam ne dañoo jàngi woon alxuraan ba mokkal ñëw dugg ci biir marché bi fas yéene daan seen doole rek ñoo fi nekk kese ñoo ne fii ci marché bi kon bu ñu ñu ñu mënee dimbale ngir yàlla yonent bi bàyyi nu ci marché bi Serigne Fallou bii doon tere dañ koy defar sax ñu defar ko te buñ ko a loo xam ne lii day kii ñun ñi fi nekk amuñu doole buñ ko defaree ba pare buñ ko jox borom doole yi bàyyi ñun way néew doole yi bu ñu sañoon dañ koy defar joxaat ko ñun ñi nga xam ne ñun ñooy néew doole yi ñu mën fee yaxantu mën a joxe àddee mën a yóbbul suñu njaboot loolu daal lan bëgg ñu kay loolu mooy problème bi ndax buñ leen woon la ñuy defar wala defar nañ ko ba pare waaye ñun waxuñu dara toog nañ daal ñu ne ndigal jóg te ndigal li ba jógee dañ koy jëfe ndax ñun lépp lu ñuy tudd di tudd Serigne Touba ñun d'accord nañ ca loolu bëgg nañ loola te danañ ko jëfe bu sooba yàlla yëkkati nañ suñuy bagage dañoo fas yéene ñëw yor suñuy bale ak suñuy ratu bale bu Baye Fall yi ñëwee nu bokk ak ñoom tonni ko ba mu set wet ñu dem ndax duñ fi fekk cantine bu ñu yëkkati xanaa mbalit mi te mbalit mi ñoo ñoo ma ko fas yéene bopp ah, ndigal li bi mu tàbbisee ci loxol Cheikh Bass jàll ci jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ am di Modou Mbenn ñu def communiqué jàllale ko ñoom Baye Fall yi ñun lañ leen waxoon rek ca lañ nekk ndigal loo xam ne sëñ Mountakha joxe na ko kenn duñ ci jiit biñ ko biñ ko yëgee ñun jëfe nañ ndigal li jëfe goo xamante ni incha allahu taala danañ bale marché bi ba mu set wane ne ndigal li sëñ bi joxe kenn duñ ci jiitu incha allahu taala. taalibey Serigne Touba yi takku nañ takku goo xam ne dañ lay mën a wax ab lim rek waaye mënuñu laa wax nan lan toll. ndaxte bari nañ ci bari goo xam ne te ñëpp nag ñii ay ndaw kese lañu ñenn ñi ci seen bopp ñu ngi nii tey toog nii ngay leen di seen xale yu góor yaa ngi nii toog ñii am nañ jabar ba am benn doom ñii takk nañ jabar te jëlagunu ñii ci seen bopp yor nañu kër ay responsable mu ñoo fi nekk.